Euh, géopolitique suma ma du doon toléré ak di yabbi lu bari kon dana doon metti lol ndax ñu nit ay borom njaboot lañu ay citoyen lañu tout simplement dañu am ay droit ñu war ñu tam respecter si suñuy droit comme ni ñu respecter n'importe quel citoyen ñaarel bi Sénégal bu ñu wax détenu politique terme bi dafa impropre détenu politique mooy ko xamné ci sa opinion xalaat nga wax si ni ñuy doxalee réew mi ñu téele si wala ñu boom la loolu amu fi li fi am moy nit ñu jadd yoon violé yoon tal yàq loolu nak ku ko def yoon teg la loxo koku mom sa rew bu mu mënti doon la te nak bu kenn japp ne ay affaire droit de l'homme ak ay lenen fu mu mënti joggé ci bitim rew mën na tax be ku jadd yoon def lo xamantene ne méngoowul ak li charte rew mi wax eh, yoon da nga mom c'est ce qui est normal donc loolu du affaire droit de l'homme du affaire euh, détenu politique détenu aussi ben délit de presse parce que les léeg journaliste yi gis ngeen journaliste bo xamné ci bind bu mu bind rek ludul sa ma wala wax ja nga nga nga def ci ak éthique journalistique mais Sénégal deug deug ku ne xam na démocratie la sinon ñun buñu démocratie nga ne am fi continuer di am ci mi nit ñi di du président la ñu xool du généraux yi du magistrat yi du lu leen neex ñu wax loolu bu du loon ràññee ak di jiital yërmande yaakaar naa ne kon dana doon gën a métti. malgré yéen nag nag bu ñu bu ñu bu ñu fàtte nag. Ah. ni réew moom réew mu mënti doon ci àdduna bi yor na li nga xam ne mën na ko permettre mu doxal réewam ci ni ko charte réew ma waxee. loolu kenn waru ko umpale. waaye boo gisee. c'est une menace toujours du menace man du ma dox di menacer mënu ma nekk président bi pare di menacer. menacé wu damay fàttali nit ñi buñu parce que Sénégal dañuy jaawatle euh, ku ku bëgg jàmm ak di jox jàmm dañ koy jaawatle lélé ak xéna ku ragal wala ku amul capacité faire face lolu lolu loolu la rek damay attirer attention ñu xamné ne réew mu mënti doon la wax né waxuma Sénégal amna capacité défendre li nga xamné moy charte réewam pour que ñëpp jaar ci niñ ci wara a jaaree. Très bien.